te itam sama père Hadj Abdoul Aziz mii ngeen fi fekk dafa am lu ko ay kilifa digoon bi ñu ko ko digee nag itam yàlla moo bindoo noonu xamuloon yàlla kenn xamul affaire wa id yaidukum allahu ixda taifatayn moo taxoon yonent bi kontaan tëpp parce que yàlla def ko ni bu midee ma jox la lem waaye yàlla nag waxu ko ni ko balaa midi ci dix heures dinaa la sexal kaani yàlla jotu ko ko wax ni ko rek lem gi dina ñëw midi rek mu tëb dama dem ba dix heures mu saxal ko kaani mu ne ah li wax na di <laughs> wallahi lii weex na lii weex na lii weex na ba midi mu jox ko lem nga bàyyi ko mu dund ak jullit yi ba jant so wante moom mi dafa ñëw seet ci Serigne Babacar Sy bokkoon na ci jikkoom wax naa ko biig ni ko insha allahu yàlla lu mu la joxul rekk daf ko amul ndax li nga am ci lu baax jox nga ko sa kilifa yi li nga am ci lu baax jox nga ko njaboot yi te loolu sedd leen ci am dafa daan def bu ñëwee te sol lu ñu gome walla lu ñu daakaandi dafa rus dugg ci biir Sëriñ Babacar su ko defee mu summi ko dese turkeem maag Serigne Mansour ndax soxna si moo nu daan wooye ba nuy xaleel euh, Assane ak Ousseynou <coughs> buñ ñëwee Serigne Mansour jàpp ci catu turki bi ma jàpp ci catu turki bi ñu di ko woñ wuteeg moom Serigne Babacar lu ñëw toog ci kanamam mu toog ci kanamu Serigne Babacar jataay bu yaru kenn mësul gis kersa bu toll noonu moo tax ku yorwul doo dar dara waaw góor gi ci kaw xam njaboot bu sama koy lay jàdd di ñëw rek mu topp ko moom tam li ñu koy toppi jaaxal la mu jékki-jékki ni wax seen digganteeg yàlla dama leen di laaj loo xam ni bu leen ma war yow Mansour mi ak Cheikh Tidiane bi man mii man Babacar ak seen baay Mansour ak seen baay Habib ak seen baay Abdou mii wax leen ma tey ku leen ci gënal <laughs> e nu àndandoo ree bi ñu ree ba noppi ni ko ñoom ñëpp de baax nañu wante sama pap du it baax na de <laughs> yéen kat tànn ngeen waaw kon nag dinaa ko yëgal seen bopp Mansour dinaa ko yëgal seen bopp Habib te yëg naa ko yëg naa ni tànn ngeen wante loolu moo am ndax itam dafa ñëw moom fekk soxna si ci kaw ren lekk ci nangam yaat di ko soxna si dama bëgg jël si sama njaboot mu ni koy sëriñ bi kay ne bu jigéen mën na dimbale doom ja ba mu fàdd janam waaye dimbale ko nag ba mu fàdd kooba bàyyam rekk ko man waaw ñu ko kon nag xale yaa ngi fi di la xaar boo ñëwee rek yaa leen moom waaw yooyu yëpp cëram la moo ko moom tabarkalla tabarkalla nu nu nu nu gimmi ci yéene ko ko xam ni itam ni nu ko ko yéenee noonu la ko ko sëriñ Babacar yéenee noonu la ko ko sëriñ Hadj Mansour yéenee noonu la ko ko sëriñ Hadj Habib yéenee ndax dañ ko mas di jëw sëriñ Babacar ak sëriñ Hadj Mansour di ko jëw moom mi muy woy toog yaru ci jumaa ji di woy machaamu maqsaduna kalla wala xalabu su eh, sama bexaaj Mansour wax Serigne Babacar maa ngi toog ci seen tànk de ni ko kii gan la ci nun wallahi <laughs> ni ko gan la ci nun te loolu ci jëwu kilifa bésam dana ñëw ba tax na kon nag lool ngeen fi fekk noo ki yéen ko bokk ku ko xeet Daha Amud.